kilifa fi te yu tedd yi fi teew yëpp di suñu kilifa te kenn ku ci teewal rek mën a teewal bi ñëpp waaye ñu jël nuyoo bi ak kàddu yëpp teg ko ci loxo loolu rek mooy di jaxaar yoonu seen baax te lépp loo xam ne ñu ci rek ñu naqare ko jëfandu ko leen ci jaar ngeen déggee mu ngi li muy def tam ci digal bu kilifaam di sëriñ sëriñ sa ci la ko teg mooy liggéey maam bi teg te mboolem ku fi nekkal sëriñ Tuuba tàmbale ci Cheikh Mouhamadou jaar ci Cheikh Sidi Moussa ba agsi ci Cheikh Mouhamadou Moustapha fu ci agsi day delluwaat ci kilifa laaj bi nga xam ne da nga xam ne lu mu ci defee ñooy kilifa ndax sëñ bi ndax xam ne ñu demee ci yoon ak ñu ko yàq kon ci diggante la woon teel ba ni ko nit ñi di waxee nekk dëkk am réew waaye li muy yaakaar loo am réew itam xam ne kër la ci sëñ Tuubaa mhm. kon dëkk bi sëñ Tuubaa lu fi fi kon mu rek muy loo xam ne yi nga xam ne yéen ñu fi dégg yëpp day loo xam ne moom adduna ñoo xam ndax lu yaatu rek moom tax dëgg la te sëñ Tuubaa dafa woote ñëpp wuyu si ñi ko wuyu si nag nee ndax ko gàddaay ku ne ñëw da ngay àndaale sa aada da nga da nga ko ci biir dëkk moo dëkk yi moo tax waaye dëkk mel noonu ci adduna yëpp saa soo xëyee da dégg ku faatu wala nga dégg ku jam wala lu mu waaye dëkk bi saa su fi déggee lu mel wala ku dégg ne kon li Sëriñ Tuubaa ñaanam ne nag nag na nga ko def muy dëkk bu am kaaraange suñ borom wuyu na ko ci loolu kon nag lépp lu nit di def ci taalibe bi rek mooy gàttandu ko ñi nga xam ne rek dañoo nekk ci dëkk bi te nekkiwul fi nekkiwul fi lu neexul sëriñ loolu sëriñ Tuubaa day jàmmal ndax sëriñ Tuubaa moo ko ñaanal ci Matlabul Fawzayni wax ne na ko def muy dëkk boo xam ne képp ku bëgg jàmm nekk dëkk boo xam ne képp koo xam bëgg ngaa def ba naqari yàlla day dox sa kon ñi fi nekk itam te mel ne loolu neexu ñoom wala bëgguñ caatal loola néew na sax waaye rek mënta xeet ndax lu mu néew néew mën naa yàq lu bare bare kon ci jéem a xeex ak ñoom ko suñu doom waxee léegi bi ñu ngi ko ci kàddu bi li mu wax yëpp leer dafa mel ni nag la sëriñ bi waxoon rek laa koy fàttali dafa woote ci njariñ Serigne Malick Ndiaye mu ne ko ndax ñëpp ñëpp ko ndax ñëpp ñëw na mu ne ko woote ñëpp wuyu na de woote ak dëgg ñëpp wuyu na yàlla mooy ko kenn mooy ko kooku rek mooy kenn kon fexe ba kenn bu wax ci yow dara wala kenn du ñaaw ñëw njort ci yow dara kenn mënu li am solo rek mooy ngay seeral yàlla di seeral Serigne Touba mi tax loolu rek moo di ci am solo ndax bu leeroon ci ñëpp ñu rafet ci ñoom da tàgg te sa digg yàlla leer sa digg Sëriñ Tuubaa leer tam yàgg yàgg dana am fan dëgg la kon li ci li ci am solo mooy Sëriñ Tuubaa mi ngeen di seeral te ku leen xam ku ne xam sa kilifa kii di Sëriñ xam sa xam la yow mi xam li ci biir day danañ xam ne sëñu leen def lu dëppootu ndigal sëñu leen jàdd ndigal sëñu leen def yi tam ñu ko bëgg sëriñ loolu moom fu ne lañ koy xalaat di si ñëw xanaa ku ne xamul kon loolu jërta sax leeral ndax li nga wax rek in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu ndax loolu suñu borom da ko nattoo lislaam nattoo ko yoon wul ndax yoon wul bu ñu koy tudd lislaam a tax kon du daal lislaam rek xaw mu jël ci wàll moo tax lislaam adduna sépp ñi nga xam ne bokkul ci li waxtu ne ñu ngi jàmmaarloo moom di ko xeex ci ay xalaat di ko xeex ci ay tuuma di ko xeex ci yi gën a ñaaw waaye dañoo mel ne kuy suul ker lu ñu gën a suuf rek muy gën a yëkkati muy gën a def kon loolu mooy mbiru Sëñ ko xam kenn mënu koo naxal kenn mënu koo ko gën a xeex gën koo gotti gën koo suufeel mbiru Sëñ Tuubaa di gën a yëkkati loolu moom kenn gënu ci dara Sëñ Tuubaa ko fagul ñun ñi kenn doonu ci dara kenn jëfu ci dara Serigne Touba mën naa defar na ko mën naa liggéey ci waaye nag loolu li Serigne xam sama waxoon léegi wax bu nekk ma ne ko fàttali ne Saliou bu ñu tooñu Serigne moo tax ñi nga xam ne itam dañuy yëkkate ay kat yu jëpp di ko jëmale ci yoon xam ne ñoom itam lu leen fekk rek ñoo ko seen ndax lu rafet lañu woote ndax ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati ndax alxuraan dafa wax ne wa laa tujaadil ahlal kitaab ahlal kitaab illaa billatii hiya ahsan ñi nga xam ne bokk ñun diine sax booy wax ak ñoom wala ngay defal ñun ji daal na nekk ci waxin boo xam kon waaye nag nañ xam ne positif nit dafa sori ci biir nit te ñun Serigne Touba ñu génne suñ jëm gënaluñ suñ lépp kon ku ci dégg loo xam ne wóor na leen lii jàpp nga ne diis na ci si biir xol waxtu wi réagir rek tey loolu la Sëriñ Tuubaa dafa def ci xol xam ne xam ne itam yoonu yoon la woo xam ne dara dëppwu ceeg lu yàlla santaane dëppwu lu yàlla santaane wut dara dëppwu ceeg lu dul sunnatu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam dafa ñëw ngir yeesal yoonu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne nag la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon xetuk Sëriñ Tuubaa xëy ñu la nag kenn mënu ci woon dara ndax si Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne ñaar rek fi ñëw ñi nga xam ne àllaaxira leen fi indi ñooy lañ fa bëgg maanaam naa leen ko naa leen ñi nga xam ne àdduna leen fi indi rek yàlla suñ borom jox na wax ba ma doon ko soxlu ma ci dara ki ma jaaxal daal mooy ki nga xam ne mooy yàlla def neexu loolu nag nañ xam ne du fi jug lu ngeen dégg rek looloo ko andi waaye Serigne Touba noppi ni ci mbiram boo xam ne Serigne Amsatou Diakhaté ne ko sama dëkk bi sama yoon wi sama xasida yi lépp maa ko yoru soo sama bopp doon ma ci kenn dara kon na suñu suñu xel dal suñu njortu gën rafet mu wóoru ñu ne képp ku jub te Serigne Abdou Lahad Mbacké waxoon ca waxtaan bi mu jéem képp ku yëkkate ay jëma ko ci réew mi ay wax la nag bu koy wax tuubaa ci jiitu ndax Sénégal bu amee jàmm Touba tax ndax Serigne Touba mi fi nekk mu war ko ñu am jàmm kon Serigne bi ñu ngi lay nuyu di sant bu baax di la gërëm dina la xamal ne Cheikh Mouhamadou Mountakha xam na li nga seq moom ndax moo fi sëriñ Touba te ku fi nekkal Serigne Touba njabootu Serigne Touba ñëpp a ngi ginnaaw ñëpp topp nañ ci ginnaaw ni ngi ko defewoon ay kilifa yu yàlla def moom itam moo am ca xaasi boppam ndax kenn ku ci ne ni ñu ko ko seeree ku ci ne seq nag yow loo xam ne la nga am ci moom jox na la ko mu sëkk ba mu ba mu sëkk te waxtu wu nekk yaa ngi koy seere ci ci géej di ko seere ci biti kon loolu moom loolu la jàpp ci woon na xam na fa nga ne xam na ne ku doomu Serigne Touba jur doomu yar la dara mënti ci yow mooy jikko doomu Serigne Touba kon loolu mooy mën a nekk ci yéen yëpp suñ passé itam ñu ngi lay sant bu baax di gërëm ndax xam nañ sa pasté xam sa taxawaay xam ne. looy wax rek aussi moo tax ko loolu lu ma jort wala lu ma ngir bañ a guddal ndax daanaka wax ji li ci amoon solo Serigne Hamza wax na ko amul dara mu nekk ab ci ma dolli ci sama xel daal boobaa la Cheikh wax rek daa wax ne nit ki li nga dégg ci moom boo ko gënee gëm li nga xam ci moom la nga dégg ne laa gën a. wallaahi loolu na waaye liñ ci dégg moom leer na ci loolu yëpp. kon ñu ngi sant ñëpp di bi suñu borom dimbali ñu bokk ci inna min ibadillaahi la unaasan maa hum bi anbiya maa hum bi shuhada yaxbituhum al anbiya wa shuhada ñu wax ko ne ko fa man huwa maa amaluhum la rasulullahi wax leen nee na qawmun yataxaabuuna bi ruuxillahi azza wa jal min min xayri an arxaamin baynahum wala amwaalin yataatawnaha baynahum fa wallahi inna wujuuhahum la muminahum ala nuur laa yaxaafuuna iza xaafa annaas wala yaxsanuuna iza xasina annaas bu ñu adduna sépp maasoon ci tiir wala yu jàqit duñ tiir bu ñu raf duñ jaaxle ndax dañ xam ne yàlla ngi seen kanam Sëñ Tuubaa ngi seen kanam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala. waaleykum salaam wa rahmatulah.